Farba Senghor monsieur le ministre ñu dellu di la nuyu gërëmaat la ci euh, teel gee yeew ak ànd geeg ñun ci suba si. waaw maa ngi lay nuyu ñu nuyu itam ñi nga xam ne ñu ngi déglu yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew. Mm-hmm. ni ma ko fàttalee sànq jiite woon nga fi ministère de l' agriculture de la sécurité alimentaire waaye itam artisanat ak transport aérien di dem geeg dikk gi ci jaw ji euh, kon tey mënees naa waxtaane njeexital yi nga xam ne mbas mi am na ko euh, ci secteur yooyu ma fi lim waaye Euh, laaj sa xalaat rek ci euh, li nga xam ne moom la président de la république euh, def démb muy daal di woyofal dangaru mesure yi nga xam ne jëloon na ko ngir jano ak mbas mi di coronavirus noo jàngatee yooyu li matu mesure waaw xam nga président de la république président Macky Sall dafay faral di déglu déglu askan wi di déglu li ñuy seen bëgg-bëgg hmm. yéen ñëpp xam ngeen fan yi sama yoboo ne weer yi wala mbas bi commencé. ba ñaari weer waaw. Sénégal yëpp ñu ngi xëccu. Hmm. naan nañu ubbi jàkka yi nañu julli juma nañu ubbi marché yi nañu ubbi école yi kenn ku nekk daal da bëgg la nga nekkoon rek nga kon ni di ko def ah loolu nag président sénégalais yi ñoo ko ñoo ko fal comme ñoo ko fal ñuy puus di puus ba fan yi sax dégg nga ne am na ñoo xam ne doon nañ yëngatu. ba bëgg def ay manifestation hmm. donc jàpp naa ne ah président si boppam comme moom moom moom la nit ñi fal te nit ñi liñ bëgg mooy loolu defal na leen ko a ah, léegi nag li ci des mooy nee na leen comme defal naa leen ko ah nañuy jàng seet naka la ñuy dundee ak mbas mi fii weer ba ut ba septembre. Ah, mais est-ce que yow jàpp nga ne noonu la waroon na doxalee. ndax loolu ah, mooy mooy mooy mooy wàllam. Euh, bu fekkente ni ah, moom moo jiite réew mi euh, xëy na am na tamit benn ndëgër laay gu ñuy xaar ci moom malgré pression ak fu mu mën a jugee. waaw jàpp naa ne man damay faral di wax ne gis réew yi. Mm. dañuy def toujours ay pression ci gouvernement yi. yi pour am pour am lu ñu bëgg. parce que euh, valeurs yi changé moo changé xam nga bu njëkk nit ñi fii am na yoo xam ne daaw ñu fi daawuñu si yegg mais léegi nit ñi xaalis la ñuy wax nit ñi lekk lañuy wax te ñun africain ci suñu bopp nit moom la ñu placé ci lépp nit lañ ci waaw xam nga européens yi ñoom seen économie moom la ñu jiital ñoom li ñuy wax économie de marché à outrance capitalisme sauvage ñun ñii nag africains yi surtout ñun li ñu jiitaloon mooy doomu aadama pexe ba aar doomu aadama def naa ne aussi loolu moom la si am laaj waaw ah, mais comme Sénégalais yi ñoom ñoo ko fal ne ko lii lañ bëgg na leen defal li ñu bëgg rek mais kenn ku nekk nag fi mu toll war nga am jël sa responsabilité bopp ndax kii virus moom euh, soxor na benn soxor boo xam ne euh, amul benn réew boo xam ne attan nga ko ndax ku gis nit ñi ni nga xamee ne noonu la ñuy euh, faatoo ci ci yeneen réew yi mu mel ni ay ay ay France nga xam ne soo xoolee réew mi presque téeméer yu feebar fukki nit ñi ak juróom dee nañu soo demee eh, fi ñu anglais itam Angleterre fukki nit ñi ak juróom dee nañu nga dem Italie fukki nit ñi ak ñeent dee nañu donc yenn pays yi nga xam ne ñoo gën a gën a eh, taxaw taxawaay bu dëgër ñoo ci tane comme ay Allemagne ñeenti nit moom ñoo ci dee donc dama yaakaar ne su fekkee ne xam nañu loolu ñu ngi ci bopp. war nañ ñuy tiire ay leçons ci li nga xam ne moom mooy xew bitim réew ñuy njëkk ci mbas mi ñu seet ndax ñun Sénégal bii attan nañ lool wala attan nañ lool ñëpp xam ne ñun amuñu benn moyen amuñu ay moyens yu ñu fajee nit ñi te seet nañu ne nit ñi nga xam ne ñooy dee ci mbas mi téeméer yoo jël juróom-ñetti fukk yi ay mag lañu te am nañu feebar boo xam ne sax mën na leen yóbbu suul mbas mi muy ay jabet ki ay tension ki ay maladie yoo xam ne ci xol lay jàpp ak ay maladies yuy jàpp ci dënn ak ay insuffisance rénale ak ay asthme ak yooyu yooyu seetlu nañu ne presque ñi nga xam ne dañuy feebar cinq pour cent yi cest à di téeméer boo jël juróom yi am nañu feebar boobu te genn wàll bi sax da mën nañ dee dee boo xam ne loo leen faj-faj soo moytuwul kon deux virgule cinq pour cent yi dañuy dee xam nga loolu hmm. su soo xamee loolu nit ñi suñ xamee dangerosité bi ci nekk ba pare di xëccu naan nañ leen bàyyi ñu def la ñu bëgg dem ci marché yi nañ leen bàyyi ñu dem ci école yi nañ leen bàyyi ñu dem ci dem defi la leen lu leen neex mais loolu dafa nekk loo xam ne vraiment lu grave la. waaw est-ce que léegi président Macky Sall mi nga xam ne kon euh, pression yooyu sedd na ci ëllëg lu am euh, du ko mën a euh, gàddu ci ndoddam ndax dañ koy misaal way jur di nga gis sa doom bëgg dara nga xam ne lii baaxul ci moom muy xàccu ngir jëm ci waaye nga tere ko ndax xam nga njeexital la ak fa muy mujjee ak li ci doon sa responsabilité ndax président Macky Sall moom itam foofa waroon na sedd ci pression bu fekkent ni xam na. li nga wax ne yëpp mu mun cee tukkee. comme conséquence la may bët mm. ki moo la war a wax. fi ngay xool Sénégal nañu honnête. kon boo nekkoon place tamit noonu ngay def. non dama ne Sénégalais yi nañu honnête. Mm. su fekkee ne ñoom ñu bàyyi leen ñu def la ñu bëgg moom moo leen gënal. ñu imposé ko pare su ëllëgee responsabilité bi na ko kenn ku nekk gàddu. Mm, ñu partagé ko président Sall. cest à kenn ku nekk kii es responsable. parce que feebar bi. Macky moo ji président Macky moo ji réew mi. Mm-hmm. mais su sañoon kenn du feebar su sañoon nit ñi dañuy wér. Mm-hmm. mais su nit ñi xamee ni lii safar la. ñuy jël seen loxo yi ko ci dugal. mais loolu lan lañ ci man mënatu ci dara moom moo lay wax ngay def la ngay def. Mm. je crois que problème mooy yow man ak keneen kenn ku nekk war nga jël sa responsabilité. pour ñu xam ne dañu war a préserver réew mi dañu war a préserver su mag yi dañu war a préserver askan wi. Mm. am na foo xam ne waruñu faa yegg mais mënoon nit ki nga puus ko ne ko defal nangam mu def ko pare ëllëg ga mu mel ni du yow hmm. loolu loolu loolu loolu jekkul donc problème bi tey ëllëg ëllëg lay am Sénégal yi man jàpp naa ne ñoom ñooy responsable hmm. président dañu koo fal rek fi nga falee dañ naan xoolal fii moom mi ngi déglu nit ñi hmm. parce que amul luy xew ci réew mi te du intervenir ni ko nit ñi bëggee ba ñuy defaara fa affaire bi metti na ki Sénégalais yi nañ ko assouplir au lieu que moom mu jël euh, confiné ni comme ni comme nit ñi di def mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne virus bi nañu fexe ba tëral ko vingt heures ñu tëral ko ba six heures du matin ah loolu mu ne itam nañu fexe ba woyofal yenn yi ci nit ñi kenn ku nekk mën a def mën a wuti la ngay fori ba pare ñu mën a fexe ba ñu respecté li médecin yi wax ba nit ñi mën ci jàll mais nit ñi ne bëgguñu loolu dañoo bëgg ñun jël lépp dañoo bëgg jaral na leen ñu xeex pour dem julli yi jaral na leen ñu xeex pour dem marché engrais na leen ñu xeex pour ñu rapatrier ñi sabat gis nga ko dem nañ ba ci tribunal mais président mënul def lu mooy def ku fi nekkoon tam lim li li nit ñi bëgg moom ngay def su fekkee ne xam nga xam nga xam nga sénégalais. Hmm. léegi nag nañu fexe ba nit ñi kenn ku nekk nga jël sa responsabilité nga xam ne lu ñëw ëllëg dañ ci am responsable ba mu doy sëkk bul ko jël du ko wekk ci keneen man noonu laa gis. ni nga gisee taxawaay nit ñi yaakaar nga ne mën na nañoo réussir dund ak virus bi. mais nit ñi lekk lañ lay wax te du ci ak ak xaalis lañ lay wax. Hmm. c'est-à-dire loolu moo nit ñi war nañu xam ne Sénégal dafa war a dund ëllëg ëllëg dañu war a taxaw fi yeneen rio yi di dund. Hmm. donc ku nekk da nga war a am conscience. donc xaw ma nu ñuy nu ñu koy defee. Hmm. waaye yaakaar naa ne comme ñoom wax nañu ba am lañu bëgg. ah danañ def li nga xam ne. danañ góorgóorlu moom la ñu war a def ba fànq virus bi. man foofu laa ko wér. d'accord ñu ñëw ci am naa ci yaakaar am naa ci njort ne. nit ki soo ko poussé ba mu defalee la nga bëgg dooy mm. tax war ngaa def li nga xam ne moo la war man de njort bu rafet boobu laa jàmm kon xam naa nit ñi dañu war a man a xeex ak virus bi ba nga xam ne du yegg fa ñu xalaat ne su fa yeggee du baax ci réew mi. Mhm. jortu gu rafet boobu de am naa ko. baax na leer na alors ñu ñëw ci njeextal yi nga xam ni euh, mbas mi am na ko ci secteur yu mel nii mbay mi d' abord nga jiite woon ko ci Sénégal ci jamonoy président Abdoulaye Wade yegg si nañu daanaka ci nawet looy xaar tey ci euh, atum ren ji ci nawet gi euh, ci jamonoy mbas mi ñu nekk. xam nga atum ren mi dana metti dana metti ndax li nga xam ne mooy mbas mi réew mu dafay arrêté li wax activité activité su suma yeboo humaine sax nit ñi sax seen seen lañ mënoon ak lañ doon def mënatuñ ko def parce que nit ki su dul dox di dem di ñëw su fekkee ne dañuy wax distanciation. Hmm. muy sorente mais da nga waroon liggéey doo ko mën surtout mbay mi nga xam ne fii dafa laaj ay juróomi nit ñeenti nit ñooy nag ci tool di bay xam nga foofu kër gu mu dugg rek day nekk clostère ñooñu ñëpp dañuy feebar donc li ma ciy am craindre mooy affaire bi dina metti hmm. comme affaire bi dina metti nag nit ñi ak fi mu toll nii am na ñaar fukki département ak ñaar yoo xam ne ko jotaguñu feebar bi. Mm-hmm. yàlla nañu fexe ba feebar boobu du dugg foofu nañ leen aar parce que président dina dina ubbi pour nit ñi jógee ci dëkk yu mag yi mën a delluwaat ci fa nga xam ne moom la ñuy bayee mais loolu itam nañu ko encadré. Mm-hmm. mais encadrement encadrement nit ñi nañu ànd ak seen xel. te xam ne am la nga bëgg tey te ëllëg mu jural la musiba loolu baaxul man daal di ma wax mooy mbay mi. am na solo parce que suñuy bayul ëllëg. duñu am lu ñu dundee. déwén duñu am lu ñu lekk. Mhm. duñu am lu ñu dundee. réew mi du am koom-koom. Mhm. donc war nañu bay président xam na loolu ba tax mu bëgg a yombal nit ñi mais nit ñi itam nañu seet ni nga xam ne noonu lañ koy defee ba loolu mën ba loolu mën a nekk te loolu pour mën a nekk il foo seen santé. Mhm. parce que su fekkee da fekkee ne yow da nga feebar lekk doo ko man su la joxee lekk sax da nga naan suur nga. suñ la waxee ne kaay dem nga dem fii wala nga dem fële doof bu la dem. Mhm. kon nag nit ñi xam ne wér gi yaram gi moom moo jiitu ci lépp wér ku wér moo mën a liggéey. Mhm. man daal fi ma ko wékk mooy mbir mi nar na metti waaye yàlla na ci yàlla def sutura parce que xanaa yaakaar naa ne nit ñi peut-être xam nañ ne nar na metti te xam nañ ne li li ñu laaj jox na président jox na leen ko ñoom dañ def li nga xam ne. moom la mbas mi laaj ba ñu génn ci. d'accord ñu jóge ci mbay mi ñoo ci euh, li ñu naan sécurité alimentaire kaaraange ci wàllu ñam euh, wala sax moom sa bopp muy autosuffisance gi euh, Sénégal jot na fay taxawal ay plan yu bari bokk na ci REVA jamonoy président Wade nga doon ko doxal alors lan moo tax monsieur le ministre ba léegi Sénégal mënul moom boppam ci wàllu ñam gi. li ci gën a am solo mooy li ñuy wax ndox téye ndox mi. Hmm. maîtrise de l'eau fexe ba nga xam ne ndox mi da mën a jox parce que ndox moo jiitu ci lépp te xam nga ne ñun sunu sunu ndox mi ci taw bi laaju gis nga daaw rek ni taw bi ñëwee am fu mu am ak fu mu amul yéex a ñëw loolu jur na loo xam ne euh, la ñu bëggoon am ko amuñu ko donc problème bi grand bi Sénégal am mooy ndox ndox mi nag dañ koy jëlee ci ci dex gi dañ koy jëlee ci ci suuf si te seet nañu ne léegi dëkk bi soo seetee Sénégal euh, forage yu bëri dañuy wex te loolu dafa laaj aussi investissement bu bees. Hmm. ñu tourné wut ay machines yoo xam ne dafay segg ndox mi te pour ñu mën koo béyee. mais loolu borom xam-xam ñu ne nekkul loo xam ne lu jafe la lu ñu mën a def la ci ci xëy na diir bu xaw a gàtt sax. waaw mais jafewul. Hmm. jafe na parce que il faut les moyens. il faut nga am. te moyens yooyu am fi hmm. non réew mi réew mi nekkul ne lépp dañ ko war a def ci ci ci benn secteur. donc at mu jot xam nga dañuy toog ñu taxaw. yu ne lii mooy budget réew mi lii ak lii la ñuy liggéey am na aussi problème d'organisation fexe ba li nga xam ne moom moo jëm ci mbay mi mu yegg ci mbay mi fexe ba nit ñi aussi am ay semence yoo xam ne ay semence yu yu baax lañ mm. mais am na progrès yu bëri yoo xam ne réew mi am nañ ko am nga soo gisee li ñu def légumes yi production bi ci am léegi Sénégal mos ko ci woon a am mm. donc vraiment foofu Sénégal taxaw na fi ab taxawaay boo xam ne bu am solo la. mais tout le temps laaj biy ñëwaat mooy euh, programme yi ñu fi taxawal yëpp ak xaalis yi ñu si dugal yëpp ba léegi ñu atteindre objectif boobu fan la yëf yi cangee. non loolu ci gerte gi la ci gerte gi la demee. Hmm. ak ci céréales yi. ci gerte gi fi mu ci demee ak ci céréales yi moom mooy problème mu li ma la wax rek moom mooy problème mooy problème mu ndox mi. Hmm. parce que ñun dañ koy fekk depuis mille huit cent trente ñu ngi bay gerte. Hmm. gerte googu surface yi ñuy béy ci Sénégal gerte googu moo te dafa wékku ci ci nawet ak ci noor. na mm-hmm. loo xam ne structuré la dafa naqaree dafa naqaree dindi xam nga li ñu mën kay mooy li nga xam ne mooy bay ay légumes bay yeneen yi nga xam ne dañ koy soxla wala defar ay fu ñuy nappee jën yi mm-hmm. ci ay dex wala ci ay déeg wala yu demee noonu c'est-à-dire yooyu moom la ñu war a la ñu war a la ñu war a yokk mm-hmm. mais da ci am loo xam ne Sénégal munu ko maîtriser parce que fekkee ne ci taw bi nga yaakaar pour bay gerte ah xam nga ne loolu moo seen taw bi maîtriser wuloo ko day nekk mhm. donc daal il faut que ñu réorienté waat euh, dundin bi parce que dund doo suivre que nit ñi sooy na doo bay doo bay gerte xam nga ne yow nit duñ la dégg sax. Mhm. am na ne mënoo génne seen bopp yi bay gerte ak dugub. Mhm. parce que loolu lañ xam. donc loolu moom moo tax situation bi xaw a jafe. mais am naa yaakaar ne comme ni nga xam ne ñu ngi moderniser mbay mi ñu ngi indi ay tracteur yu bees alors ñu ngi indi ay xam-xam yu bees. ñu ngi wuti ndox mi incha allah yaakaar naa ne at yi ñëw ah, ceeb beeg dund beeg céréale beeg yooyu dana fi mën a dana fi mën a doy. baax na ñu ñëw ci artisanat euh, jiite woon nga aussi lee ministère euh, tey artisanat bokk na ci secteur yi nga xam ne xëy na ba tey ñi nga am dëgër laay ndax euh, wàllu masque yi ñoom ñoo ci nekk ak yeneen ak yeneen yoo xam ni xëy na daan nañ ko jéggaane ji feneen te fi mu ni yi ci réew mi rek la ñuy mën a jëfandikoo ndax daanaka fi mu ne ku ne sa bopp nga tal artisanat googu jàpp nga ne mbas mi mën naa doon occasion ngir mu suqaliku waaw defe naa ne nag président Ah, li nga xam ne moom mooy budget bi jëmale ko ci côté artisanat parce que budget bi budget réew yëpp dañ ko jëmale ci li nga xam ne euh, moom mooy mm, santé parce que fi mu toll feebar bi moom moom moo yëngal yëpp mm. euh, artisanat bi am na liggéey bu rëy bu mën a def parce que lu tolloog masque yi lu demee ni masque yeeg lu demee ni solution yi hydroalcoolique yeeg lu demee ni liggéey yu ndaw yi dafa façon saabu ak yu bëri yoo xam ne Euh, même sax defar yi nga xam ne mooy machines yi respiratoires yi defar ay lal yi sax lu yu bëri suñu tool artisanat war na ko mun def donc dañu waroon toog ñu defar benn journée spéciale conseil spécial xool artisanat yan bunt opportunité moom la am ci mbas mi su ko defee ni jox leen ay moyens encadré leen hmm. ñu liggéey liggéey bi loolu suñ ko defoon vraiment bunt dana fi feeñ ndax àdduna bi moo demee noonu réew yëpp ci sant lañ jëm lañ ko jëmale te santé tam dafa ànd ak artisanat la ñuy liggéey hôpital yi hôpital yëpp mm. yu bëri ñu ci jumtuwaay yi fay def artisanat bi man na ko mais loolu dafay laaj ñu toog ñu xool ko ah, nit ñi gëstu ko ñu gaaw ci nag mm. parce que lii moom fii ak trois mois suñ ko exploité wul ah affaire bi dana xaw a yeex mm. man daal am gis naa ne bunt la bu am solo boo xam ne war nañ jàppale direction de l' artisanat war nañ jàppale artisan au Sénégal yi war nañu fexe ba situation bi ñu wu ci pleinement parce que seen ñoom ñoo ay daal. Mhm. jërëjëf monsieur le ministre Farba Senghor amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ne jiite woon nga fi ministère de l' agriculture de la sécurité alimentaire waaye ministère de l' et des transports aériens ñu ngi lay gërëm bu baax. waaw maa lay sant maa ngi gërëm auditeurs yi ñu doon déglu yëpp jërëjëf. jërëjëf ñu yendoog jàmm.